gërëm bu baax comité d'organisation bi ci njiitalul sëriñ Bassirou Abdou Khoudoss ak rakkam sëriñ Khadim Mbacké moom sëriñ Habas euh, ginnaaw loolu di nuyu mbokk yi fi teew yépp njabootuk sëriñ Touba gi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu njabootuk seriñ Touba gi ak njabootu borom Daaru Muxti gi ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ci seen tur ak seen sant di tamit euh, délégation bi nga xam ne Mon la fi président de la république euh, Yamblé, mon président Macky Sall ci njiitul suñu xarit euh, le ministre euh, Oumar Gueye mon ak mu àndal le ci président ñu ngi dit nous nuyu di nuyu tamit le ministre Abdou Karim Fofana di leen ndokkeel di leen ñaanal sas bi nga xam ne moom la leen mi sas Yalla taxawu ci ba ñu mën a liggéey liggéey bu nga xamné ne dana nek njëriñul askan wi yëpp. ginnaaw loolu ma gërëm conférencier yi sëriñ Jibi Jaxate sëriñ du Bassirou Sarr ak euh, sëriñ Abo sal ci synthèse yi ak yi tamit euh, sama sëriñ euh, sëriñ Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma suñu wax du ci gudd seede la rek ndax taalibe lañu borom Daaru Muxti lañu yaakaar te dañuy yëngatu ci wàllu politique mu demee nag ne bu ñu toogee jotaay bu mel nii rafet nañu def seede bu gàtt rek wax tuuti rek ci ni ñu gisee thème bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ndax jàpp naa ne politique bu ñu ko defee ni ñu ko war a defee warul yàqu mbokk warul yàq ak dëkkandoo. warul yëngal dëkk warul yëngal am réew ndax politique xalaat la gis-gis la xalaat ak gis-gis ak yoon nag mën na wuute ndax xel yi bokkuñu waaye lu mu wuute wuute wuute ñun ñu koy def ñëpp war nañoo jàpp ne am na lu ñu bokk lu nga xam ne moo ëpp doole te politique war koo tas ba ca njëkk mooy ñoo bokk réew mi te politique warta tas réew mi ñaareel bi bu dee ñi bokk dëkk ñu mel na ñun ñi nga xam dañu dëkk Daaru Moxti ñoo bokk dëkk ba kon politique ñoo indi ñoo am comportement bu nga xam ne dana indi jeexi jaaxa wala dana yëngal dëkk ba ñetteel ba te jàpp naa ne moo ci gën a am solo mooy ñoo bokk sëriñ bi bu dee ay taalibe sëriñ Tuubaa lañu kon kenn ku nekk ci ñun bu sóoree ñett ñooñu lu politique jax-jax-jax lu wute gisee am am am kenn ku nekk jàpp naa ne bu sóoree loolu rek jàmm jàmm mooy am loolu nag li tax mu mën a nekk mooy kenn ku nekk ci la mu gëm ñu ba ca ndax moo ko xalaat moo ko seet ba mu doy ko mu gëm ko nekk ca waaye kenn ku nekk tamit lay position lay taxawaayam ci jamono jooja ñu nangul ko ko ndax loolu yi tamit dafa bokk ci lu nga xam ne euh, liberté liberté nit ki la te nag politique day wéy te am na lu dul wéy politique fii la yem te am na lu nga xam ne fële la jëm nekk ci li nga xam ne fii la yem nag ba fàtte la jëm fële yaakaar naa ne loolu xel mu në xel mu nëx romb ko te jàpp naa ne fële moo ëpp doole fuuf fii léeg-léeg nit ne politique àdduna la yem ma ne xanaa boo politiquee ba ba nub teen wala nga politique ba jëmbat garab wala nga politique ba def baax waaye xanaa nag fële kay da ko fa fekk kon jàpp naa ne politique yemul dong fii nga xam ne fi la ñu nekk muy ci ci àdduna bi donc daal ci gàttal dama gis ne. rapport yi nga xam ne suñu kilifa diine yi am nañ ko tey boo waxee sëriñ mbay sëñ sëñ mbay si Mansour mu ne la wàllu diine lu ma ciy def ma ciy yëgoog sëriñ Basiiru sëñ Muntaxa Basiiru nga demaat ci keneen kilifa diine mu wax loolu gën naa ne ñun ñi nga xam ne ñooy waay politique yi tamit ak fuñ ñu mën di bokk war nañoo sédd sédd loolu war nañoo jël exemple ci kilifa yooyu nga xam ne ñooy suñuy kilifay euh, euh, diine te boobaak léegi jàpp naa ne ni ñuy doxalee rafet rafet lool te ñu ñëpp tamit ñu gis ci ñu gis ci ñu gis si suñu bopp lii nga xam ne xew na bërki démb nag ci wàllu wate yi man am naa ci njàngat bu tuuti rek dama bokkul ci ñu gëm ne li xew tuubaa walla li xew Daaru Moxti walla li xew feneen wàllu tariixa la dama koo gëmul ndax bu fekkoon ne tarixa dong mooy li nga xam ne moo tax nit ñi watee noonu yaakaar naan ci candidat yi fi nekkoon am na ci ñu nga xam ne bu dee wàllu tiijaan saf nañ ca sàpp lool jàpp ma ne tijaan yi woteel nañ leen ñëpp am na ci ñu nga xam ne bu dee wàllu murid dong ca la ñu juddoo ca la ñu yaroo ca la ñu màggee fees dañ ca lool waaye jàpp ma itam ne tax na waa Tuubaa woteel leen kon dama jàpp ne ñi nga xam ne ñoo wotee noonu nañ leen nangu ne seen xalaat la rek ñu am nu nga xam ne noonu la gisee ci jamono boobu ñu tërale seen i vote seen i vote seen noonu man loolu mooy li nga xam ne fondamentalement moom laa gëm te loolu tamit mooy li nga xam ne ku saytu dëgg dëgg dëgg bi ni mu tëddee da nga gis itam ne noonu la noonu la noonu la demee kon nañu yàlla may jàmm yokk ko ci euh, réew mi. li war a xew euh, xew na ki fi yàlla teg nañu ko ñaanal yàlla jàppale ko yàlla sàmm ko yàlla aar ko ndax tey moo nekk ci boppu euh, réew mi boo amee jàmm yaakaar naa ñun ñëpp daañu am jàmm ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp te di am mbégte trop nag ci lii nga xam ne taxawal nañ ko fii ndax fan yëpp maa ngi dégg ci Facebook bi ci réseaux sociaux yi étudiants yi. nit ñi taalibe boroom daaru moxti yi waa kër sëriñ Tuubaa gi di ci def liggéey bu am solo ndax nag borom daaru moxti dafa nekk lu ko nga xam ne euh, mbiram Sénégal gépp ci war a jariñu àdduna gépp ci war a jariñu humanité bi yëpp ci war a jariñu te mbir yu mel nii dina tax ñu bare bare bare lu mu réere ñu gëstu ko ñu xam ko ba ni ñu war a doxale ñu doxale ko ñoo ñu gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu